li ngay défendre Aïda Diallo mooy intérêt personnel ci sa bopp bi lekk Aïda Diallo di ko roñ di ko bis bu yàlla sax nga dem jóg ko ay fen ba mu fees sa li ngay wax dara du ci dëgg Modou Modou doo delloo sa nag nga wàcce sa bopp nag. ngay jóg nag màggalu Touba gi may dégg nag ya nga koy dugal ci Touba di ko yóbbu ci sancaan yi di ko yóbbu ci taalibe Sëriñ Touba sama xol ci seetlu bu yi nag yàlla. dañ ci kontaan loolu dina ci ñaanal waxtu wu ne yal na la yàlla sa borom yokk may la gudd fan may la wér lépp na saytaan di la xamal nii li sëñ Abdou Lakram wax léegi sëñ Safa wax ko léegi mooy dëkk sëriñ Mountakha moom dafa gumba tax nuur nuur ba jeex tàkk ci sëriñ Touba dara ñëw ko sëriñ kon lu a wax it rek ko ñëw rek ñëw te ci sama gis-gis ci li ma teg sama bi ndax tey mooy sama ñetteelu yoon ma ñëw ci lu baax rek ngay dox jàll ci Sëriñ Tuubaa rek ngay dox bul sonn bul tàyyi dafay baax baax na ba pare waaye dañ gën a baax incha allah